waaw parce que nga daanu coow li juub du ñàkk fayda ndaanaa na koy am. baam bala moo gudd ñu jeexal ca Balla Tapha Tine. waaw face à yu garaaw la mais bu arbitre bi noonu pire am na koy daan. am waaw parce que teel naa yenn combat bi. moom signature ne nu mu signature di yuuxu boo yaa ngi yëgul boppam. waaw mais waaw yëg boppam bokkul ci combat ku naagu daagu. ku daanuñu robb la da ko fàtte noonu tekk teru ko am déet te am na bal yoo xamante ni soo ko yoree yow tafaatin waroo koo basaate da ngay naan mugg moom yow yaa ngi dégg sa jow léegi nga liggéeyal sa bopp mbër day liggéeyal boppam si kaw tribune bi si kaw nit waaw tafaatin poids bi arrangé wu ko arrangé ko rappeliteel acca ah tafaatin poids bi daa bëri daa bëri xamal ba xam yaa ko moom acca mais léegi Tapha mooy ñëw mooy accéléré mooy bëgg a topp Balla Gaye si rythme bi mu ne ba pare ba juum ba fàtte moom ni mu war a préparé Balla. tàkk ci koom démb. non day gën a tàkk rek làmb ji mënul yomb tàkk nañ ba pare bàyyi leen ñu boy rek parce que ñun bu newetee ñu wax lu tax muy lewet mais bi mu yuuxoo moom bu ko seetaanee dina xam ba xam daa war a yokk yuuxu yi wala daa war a wàññi yuuxu yi. waaw xam nga xaayaan ku dégg séeréer waaw kay bu ko seetaanee ah tey dana xam ba daa war a wàññi daa war a yokk. mais par dama gis comme face à face bi jeex si réseaux sociaux yi foo dugg gis image yu Balla image yu Tapha ñu ko collé noonu différence de poids beeg différence de taille. te gis nga li des si ay weer ni mu bare ñaata ko fi jiitu kenn waxatul leen waaw pomme du new salade du u ñax parce que loolu dañ kaa war dañ kaa war a taaru rafetal ko parce que combat boobu daa am combat yu ko hmm? parce que si la xam ba xam Balla pare na wala parewu te ñoom ñaa ñëpp si financé xaalis te ku ne tukki na te gars yi bëgg nañ combat boobu parce que Tafatine ba xam day jëli roi des arènes wala Tafatine mënul daan Balla gay ba léegi waaw parce que ama seen a ngi ni duggaat ko ñoom Balla Gaye li gën a garaaw ñu mu mënuñ ko mu confirmer ko tey te Balla Gaye ngi ni duggaat bawal waaw non non non aller tour la leen defal ale dégg nga wax ba aller ak ale la def kër Balla Gaye ak ale Pikine amagu ko fa waxal trophée yi ama am Pikine kenn amu ko fa ama ñi mu daan ci làmb Pikine kenn bëreegul daan leen man nangu nga mairie am ku dàq bëre si Pikine ama seen la nangu ngeen ko parce que looloo yoon te mën nga ne Sénégal sax waaw nit dàq ko see bëri bërikat la daan Balla Gaye la daan te Balla Gaye la gaa yëpp na ma dàq bëri waaw ki daan ki dàq bëri kan la Balla Gaye Tapha Tine Balla Gaye day neex munu wax ba du neex mais bala gay li ma si mën a wax ba wax ko mooy xaar dinañ si waxaat Balla Gaye daa war a deel. dellu man fa yaakaar naa sax dina deel. ndax war a dellu. non Balla daa war a dellu parce que li des ci combat bi bëgguma mu toog fii sax man boog sama gis-gis laa wax de sama xam-xam mais ku ne mel ne Balla warut toog fii ak di SRS yi na dellu concentré wu daan Sénégal liggéey leelu parce que fan si am na lu soxla te moom xam na ni seen kër non non non non non saaga warul jëm fuñ ko foogewul te war naa mën a wekki bakkan bi teg ko ndax baala borom jom waaw kon borom jom nag day teel a rooti. dañu waxante ñoom wax na dëgg day dindi stress parce que yàgg naa mere baala yuuxu yooyu yëpp dindi stress la waaw parce que tey jii de moom saa moom tafaatin yuuxu yi dama yaakaar da bu doon taya yuuxu bu doon taya. ah loolu bu doon tay la wax la sawaay na ko yow bu doon tay doo ko def da dindi sa stress yow sawaay bi ngi dégg yuuxu yi mais ñiy déglu yuuxu yi dégguñu yuuxu yi mais yuuxu yi ak moom ay wax la dégg ma yuuxu yi mooy bu doon tay la léegi léegi nii la ko wax sawaay na ko bu doon tay laat dindi nii rek. li daan baal na la fii ma daan ko non loolu si dara. tollu si dara tey ëmma ñu ko jaaxal ñëpp la si Balla Gaye daan waaye waaye moom it ëmma ah, mi ñu jaaxal Modou Lo ñëpp la ko ëmma daanal waaw kon loolu du si dara du si dara. defetu Sa Thiès sa combat bi Balla Gaye jëm. defetu. Sa Thiès ak combat bi Balla Gaye jëm ak Tapha Tine mi mi mi nar a loolu. loolu ku la ne du si gée waxu loolu am man sama rakk bii ma bokkoon nday ak baay bii suñu kër buñ ko daanoon day gée si man man xaw ma nag keneen. man lu may wax sama bopp laa koy conseil da ci jouer parce que moom Balla Gaye lu mu doon si am lu mu may gaay seen i fans kii faral bala gay mooy faral Sa Thiès en général da nga lool mais bala bu leen daanelee jël bii dañ dañuy fàtte jël yële parce que bii moo gën a neex bii bi bii mu ngi mel ne bii lutte de champion la ak ay championnat bokkul Tapha Tine Balla Gaye de champion la bokkul si lit ba la jëm ñoom ñëpp ñoo bokk jëm sa roi des arènes bi bokkut ak yi nga xamante ne ay champion naa la ay benn ba fee Guédiawaye ak Malika ak Thiaro jël benn plan yu ndaw yi équipe yu ndaw yi bokkut ak équipe yoo xamante ni ay ay ay ay champ ay ligue de champion la ñuy fubal bokkuñu. mais mais ñu Tapha Tine Balla ñu ñu réussir ba am commune ba jaay combat bi ci seen communication ak sorte ñu def ak démb face à tamit. Euh, xool ci ñoom ci roc ci ñoom ci boobu noonu pour lamb gën a gën a nekkaat ci beneen Pokola ak Rona def nañ ko seen signature xoolal daanaka booy jiyaar lañ ñu mais xoolal tey ji daanaka tëggalaat nañ la te ñooñu daanaka Aziz Ndiaye du leen baay ndax Baye Ndiaye dem na ba daanu la dugg ba si biir géew bi te si combat boobu rek la duggee si géew bi te booyooyu mën nañoo gagné lu ne parce que combat bi dañoo joxe lu ne muy Pokola ak Lion ak Lewis waaw parce que loolu mooy àdduna Balla Gaye ak sawaay mii nii ñu màmmee nii si làmb noonu la ñëpp war a màmmee làmb ji mën a port boo bëggee ne defal ni gars Pokola Sawaay ñoom ak Talf ak ak kii ak Mor Kankang ñoom seen ñoo duy fee parce que ñoo neexal affaire yi dafa mbër sax der la parce que ni si signature day teg sañ-sañ ba pare lépp day leer. waaw kay merci te loolu day dundal stade waaw di ziar ñëpp waaw di masawu ñëpp waaw di ñaanal ñëpp di sàkku ñaan ci ñoom waaw di képp koo xamante ne laamul lëwum ko rek lu mu fi wax lu juumu rek na ngeen mu baal àq. macha allah am bu baax baax di jaajëfal ñëpp ñuy suivre Catapult surtout Italie Espagne di la ñaanal jàmm bu baax baax di la ñaanal lu ñu wutu foofu yàlla yombal leen ko di leen dig dajal benn ñoom ba leen invité ci waaw mais Balla Gaye ak Issa ak Tapha moom war naa wàññi tuuti poids bi poids bi bëri na trop macha allah waaw loolu boobu bëri na ñoom ñaar seen waaw ñoom seen état de yëpp ñëw nañ mais Tapha Tine wàññi poids bi tuuti Balla tamit poids waru ko te nag pois pois kii nii maanaam euh, état de forme bu Balla doo ko gis ndax Tapha Tine ñu ci dayoom macha allah loolooy loolooy problème bi doo ko gis mais fu ñu sumee ko da ngay xam ne dafa Balla Gaye dafa jël pois léegi moom pour bëri feeñ warul topp Tapha si bëreem ci yéen poids am li war a def moom mooy contact ba os andi lii mu bëree ak Modou Lo dernier combat mm. loolu mooy tax Balla gay gaaw. mais bu ko Tapha Tine ko poids de trop loolu moom pour mu manœuvrer ko dina yomb ci moom Balla. non loolu dara si moom xam nga Balla bëreekat la Balla bëreekat la Tapha li ko def li ko arrangé la def parce que Tapha luur la boo xam te ne maanaam géant la lii muy bëreel nee naa la ñaari ci ñaari kele war na cee mën a tëj làmb. ci ñaari kele war na ci mën a tëb làmb moom mooy dëbb sol plaqué ak mboot colol parce que njool la boo xam te ne saa yoo ko jëlee bu la laalee da nga war a jeex tak parce que dayoom la macha allah taay mi yor la boo ko forcé boo dawee jël ko foo ko forcé bu la wonee ginnaaw bu la mboot bu la lonkee mboot colol da war da nga war a fekk parce que mu la war a xëcc da war a ñëw kon Balla Gaye am na intérêt tamit gaaw dafa war a gaaw ci combat ku ne xam Balla Gaye dafa rapide ci làmbam léegi avantage am pour mu xeex ak waa ji génn jàppanteeg moom ku ne xam na ne moom bokkut ak yenn mbër yi di tax dama wax sax bokkut ak Sa Thiès mm-hmm. que booy seet leen différence mook Sa Thiès buy ñëw day dër du xeex yow jaxaat ak yow mm-hmm. waaye bu dee Balla Gaye moom day ñëw li mu andi moom mooy xeex woola ci xeex nga wuy ko bu bàyyi xeex ba daw bëri jeeg yow loolu lay bëri see léegi nag soo amul poids rapide bu gaawaay mm-hmm. boo andee ak tafaatin soo andee diis pour nga bëri sa bëri day jafe. nga bëri si bëri day jafe. pour ñu bëri si day jafe. pour nga bëri si day jafe. mais face tàng nañ benn moment ndax Tafatine yuuxu na baal na ko pression jàpp. waaw xam nga loolu nag làmb lañ ko fekk loolu la jaay combat bi loolu moom arñe làmb la wax dëgg yàlla rafetlu lañ ko bu baax a baax a baax waaye daal seen état de forme bi ku ne andi nga état de bu baax waaye ku ci nekk war ngaa wàññi Tapha Tine war naa wàññi ba am laissé tuuti gaaw xaw a gaaw tuuti Balla Gaye moom wàññi da ko war ndax dafa war a gaaw da ko ndax dafa war a gaaw ku ne moom xam ne bërëm dafa dafa dafa gaaw mm-hmm. pour mu mën a am Tapha ci Tapha Tine lu ba bëri il mu wàññi poids bi pour gën mm-hmm. mm-hmm. a pour gën a gaaw waaw Eumeu Sène foo ko gisal ad foo ko gisal adversaire ah, mun na ci parce que day may booy chance rek wax dëgg yàlla fi mu ne nii bu mayewul revanche day may booy chance rek waaw loolu lay problème bi moom ci moom lay des moom moom xam naa ref mi nii xam naa feegu suba gars yi fuggaat ko avance waaw wax dëgg yàlla ndax defaat na exploit waaw mm, merci Tidiane ok tawfeex rek waaw jaare Sentec di benn entreprise bu xarañ ci wàllu GPS dégguma di GPS dernière génération 2.0 IP 68 résistant à l'eau maanaam bu tooyee du def dara yamuñu fa GPS bi buñ la ko montalee fi nga toog dara du la ëpp ci sa oto wala sa moto ndax dangay xam fu mu nekk sa xel daldi daal bu neexee nga fay ko poursuivre ko en temps réel blocage à distance alerte accès vitesse alerte par message lépp ci sa téléphone tablette wala ordinateur donc looy xaar pour sécuriser say auto wala say moto ku ci soxla wooteel gaaw ci 77 881 34 84 adresse ñu ngi nekk fële ci Liberté 6 ak seen Sentec Innovation seen jaaxle jeex na man moom ñoom rek lay topp.